ñëw yëngal tasaare waaw man la Elzore Chief Chief Baabi. ndax ah, waaw comme ni ko gisee rek loolu lañ mënoon a andi quoi andi fii lu dóob xam nga wan tamit que ni fii warul easy quoi waruñu fee ñëw xam nga muy easy daa war a metti parce que borom show bi loolu la bëgg te loolu lay joxe gis ñu ci bisam invité ñu ci ñu ñëw tamit war a représenter yëngal. people bi tamit jox ñu tamit lu mel noonu ñu delloo leen ko just enough. yes I Khalil Bishop SMS Salamine from Thiès. yeah man. nga dañu wax arène national wax show national quoi voilà bu ñu waxee show national nag xam nga resté wul Dakar kese quoi dafay nekk Dakar nekk Thiès nekk yeneen région yëpp ñu nag ñu représenté Thiès xam nga def collaboration bu dope. ak Ngaaka Blindé ñëw soutenir ko parce qu'on soutient le hip hop quoi yeah. seen euh, teewaay ci euh, sow Ngaaka Blindé bi ngeen def benn benn freestyle xaw ma benn playback bu am solo waa tey ci biir stadium bi yëpp apprécié lan nga ma mën a wax. we all speak English but we gonna speak Wolof now but but télés gars yi ñuy dégg gars yi ñuy dégg quoi moom la ñuy wax dañuy ñuy déggee bon en fait dañoo ñëw comme li ko gars yi waxee rek ñëw indi benn touche. ñëw indi benn waaw benn musique boo xam ne bon Thiès lañu jugee lépp lañ xam nga fa la ñu nekk fa la ñu dooree mais dañoo ñëw Dakar ñëw dakaar pour lan pour job comme lan musique la ñuy def ak ak leneen ak leneen mais musique lañ koo jël def ko maanaam mooy suñu mooy suñu gagne-pain quoi. jamono ji lépp lu ñu am mu musique la musique ci musique lañ cee def ci li lañ ko wékk quoi maanaam dañ ko jël affaire dañ ko jël o sérieux loolu lañ ko def mais Ngaaka euh, mën naa ne. lu tax ñu xam ngaaka mais benn affaire la rek benn genre deal boo xam ne day ñëw yàggatul gars yi nañ ci nañ ci xam dara am nu mu demee sax ñu yégal ko kaw seen benn affaire bu tudd meral te yàggatul gars yi nañ ko dégg incha dina am dina am vidéo dina am lépp ay surprise la boo xam ne waaw gars yi daal lañ toog di xaar incha allah SMS incha allah dina def bëm